mbokki internet yi ñuy seetaan ñëpp di nuyu groupe daara ji ci nekk ci whatsapp bi ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax a baax te di leen ziyaara di ñaan yàlla yal yàlla boo leen jàmm xéewal ak sutura ak fajuk aajo du neenu oxran di nuyu sunu baay bu baax boo xam ni suñu toll mi ngi ñu mooy sëriñ Abdourahmane Ba góor gi Abdourahman Ba daawul tardé tafsir bi ba léegi si moom itam du ko tardé di itam suñu mbokk yi di jàllale sunu kàddu yi yàlla na yàlla fay leen inna allah stara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ah, aaye la boo xam ni xam naa doy na ndax inna naka yàlla istara jënd na minal moominiina ci jullit ñi lan la jënd ci ñoom anfusahum seen bakkan wa amwaalahum ak seen alal ñu jël seen alal joxe ko ci jihaad joxe ko ci yoonu yàlla jël seen bakkanit bu joxe ko jotee ñoom ñu dem joxe ko aay bi li tax mu wàcc abdullahi ibnu rawahata dafa wax ak yonent bi kéro bi nga xamé lu mat juroom ñaar fuk ñu ni juroom ñaar fuk ak nangam dugg ci nañu ci l'islam comme ni ngeen ko xamé da ca am ku ñu wax ah, abdullahi ibn rawahata muni dama bëgg yow yonente bi nga sartal ma lan mu war sama diggante ak sama borom nga santal ma sat sartal ma ci sa borom ak ci sa jëm muni ko limalay sartal ci sa borom dal moy nga jaamu yalla te bañ kaa bokkaaleeg dara waaw man nag maanaam li may sàtt sama bopp euh, maanaam ci gàttal ni ngeen jàppe seen bopp daal li ngeen di dig seen bopp li ngeen koy bañal ak li ngeen koy bëggal mu nekk comme loolu ni mu nekk comme ni ngeen di ci sama bopp su ko defee aay boobu ma dama cee bañ a xuus mu sore ndax buñ ko toppee day sore hmm. waaye li ma bëgg ñu dellu ci waat ci mooy xoolal kiy jënd kiy jënd lu ku ko gën a foor amul mooy sunu borom te li muy jënd soxlawu ko waaye li muy jënd xool ko alal ak bakkan loola lu ko gën a foor waaye xoolal njëgga ni mu seere amul lu ko gën a foor muy aljan kon pour wax la rek aaya bi boo gisee sax sax bu nu sol bi sorewuma ci noonu te xool aaya bi maanaam aljana ni ñu ko yombalee léegi benn nit ne benn nitu yàlla daana wax ne aljana suñ Maodo laa daan dégg mu koy nettali mu ni aljana ku la ko yombalal moo la ko xañ gaa yaa ngi nettali benn waay boo xam ne papa ji dafa faatu ñu war ko rob nak di xaar serigne bi mu yag lool serigne bi dal tardé mm-hmm. ñu xaar ko xaar mu tardé ñu waaw nañ ko fafu dal jublu ci dal comme serigne bi mom yag na te ñewul te xaar bi yag na mm-hmm. ñu dal di jublu ci neew bi dal di koy rob ba yem ci bi serigne bi door agsi mm-hmm. serigne bi ak daal ne waaw yeen kat mom da ngeena a yakam ci ndax dama bëggoon ngeen bàyyi bu ma ñëw rek ah, mu yóbbu ko aljana benn yoon moo gënoon loolu daal moo ma gënaloon taaw bi daan ne ko ah sëriñ ñu ngi lay jégglu kat te di la nuyu waaye suñu papa ji dafa faatu te bàyyi fi njaboot gu sew bàyyi fi nisar yu baree baree bare yoo xam ne mbóot yu bare yoo xam ne jotut a àgg te bu ñu sañoon mu àgg comme nag ñëw nga léegi danoo bëgg faf sax ah, nga faf na ko dekkalal mu ànd ak moom dund ak moom ba ca kanam mu àggaleel nu projet yi mu ne ko ah waaye sëñ bi dekkalkat yàlla doo nga ko man xale bi ne ko kon yóbbu aljana yàlla doo nga ko man waaye liñ jublu ci loolu mooy àjjana léegi ni ñu ko yombal benn sëriñ nag warlu lu ko kenn sëriñ bu nekk dalay teg ci yoon rek ni la yoon yi boo ko wàccee boo ko wàccul danga dem aljana sëriñ boo ko mën a tuumaal ni moom moo ko warlul nit yow yàq bëgg mu warlu la ko waaye sëriñ bi waxalu ko boppam parce que sëriñ si nag sëriñ piir laa wax de waxuma nag ñi ci des sëriñ si moom gëmoon nañu yàlla gëm yàlla goo xam ne jox yàlla cëram jox goo xam ne duñ fekk mukk cëru suñu borom ñoom ñi di ko jël loolu moo tax na la astra minal mu'minina anfusahum loo xam ne alal ak bakkan lan koy jooxe ba léegi nag ñi ngi koy jaay ba léegi sunu borom a ngi koy jaay bu laajatul bakkan bi itam beneen côté laaj na ko fa mooy bakkan bi li bëgg ci lu neex xañ ko ko sa alal itam nga jël ko di ko dépassé ci yoonu yàlla ndax ba tey ñaar yi mu wax mooy yóbbu nit in na allaha naka yàlla istara jënd na moom i mu'minina ci di nit ñi anfusahum seen bakkan wa amwaalahum seen alal lan la ko weccee mooy la mu leen di fayee de mooy bi ànd na lahum naka da di ñeel aljanata àjjana waaye suñu bëggee loolu nag yu qaatiloona dañuy xeex fi sabilaay ci yoon yàlla fa yaqtuloona wa yuqutaloona ñuy rey ñoom it ñu li leen di rey ñuy xeex ñuy xeex ak ñoom waaw kay muy dikk xàqan bu dig dëgg àllihi ca di jaay jënd àjjana bakkanam ak alalam te loolu day leer na wax na ko fi tawraat yi tawraat boo demee fekk ko ca wal injili wal furqaani ak alquran yépp boo demee fekk ko ca wa man awfaa ku matal bi aadihi ci wëllërante ga mu wëllërante mi na laay ci yàlla wa man awfaa ana kan moo gën a matal kóllëre wa man awfaa ana kan moo gën a matal bi aadihi ci kóllëreem ga mi na laay ci yàlla ay laa ahadun awfaa min kenn gënul matal kóllëre sunu borom déedéet man aw faa kenn gënta matal bi aadi ci kóllërente gëm kóllërente minallaahi ci yàlla yàlla kenn gënu koo mën a matal kóllëre mm-hmm. saa yoo matalee kóllëre góor góorloo mm-hmm. moom la walaf naan nit du wàcc yàlla des mm-hmm. waaw nit du wàcc yàlla des kon nag fastabsiroo na ngeen sàkkoo bég bi bàyyi kum ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen bi bàyyikoom ci jaayante ga àlla si gi nga xam ne bàyyi atum jaayante ngeen jaayante googu bii sunu borom wa saalika jaayante googu ngir sa borom huwa moom jaayante googu dëgg-dëgg alfaws moom rek mooy texe ga àlla siimu ga di aji màgg ataa ibuuna way tuub ña te mooy ñi nga xam ni ñoo tuub jóge ci bokkaale aku naafeq maanaam daal ñi nga xam ni nag ñoo jaayanteeg seen boroom ñooñu ab taa iboona mooy way tuub ñu nga xam ni tuub nañu bokkaale gañ doon bokkaale si ak seen borom ak naafiq gañ doon naafiq gañ amoon ci seen biir xol ñoom tuub nañ ko al aabidoona ñooñu am texe ga mooy ñi nga xam ne ñooy way sellal ne ci jaamu guñ doon jaamu yàlla alxaamidoona ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne way sant ñe yàlla sant yàlla dafa am solo sant yàlla am na solo de yonent bi sallallahu alayhi wa nee na awwalu man yudaa ila aljannati yawma alqiyaama allazina yaxmiduuna allaha ala kulli xaalin fi sarraai wa darraa ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëkkawoo ñu dugg aljana bu yowmal xiyaamee mooy ñi nga xam ne dañ doon sant yàlla ci xaal bu ñu mën a nekk ci bu ñu amee ak bu ñu ñàkkee ci bu ñu wéree ak bu ñu feebaree ñooñu ñoom la ñuy jëkka wooy pour ñu dugg aljana moo tax sant yàlla boo amee xarab ko boo ñàkkee du sant asaa ihuuna ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy way woor ña maanaam saa yoxoona mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy xuufeey ci àll bi di dugg ci àll bi di dem li tax ñu fiiree ko woor mooy ñi nga xam ne ñooy dugg ci àll bi di dem ak ñi nga xam ni ñoom ñooy féey ci ndox kuy féey ci ndox dana tal lekk dana tal naana dana tal jabaram waaw ku xuus ci àll bi di dem di tukki yor ay yor di di dox ay soxlaam da du tal lekk du tal naan du tal soxna du tal dara noonu ngay mel nag yow mi nekk ci àll bi moo tax ñu jël ko nuróole ko ku woor ni nga xamee ni ku woor du lekk du naan du soxla sëy du soxla dara moo tax ñu ne as-saa'ixuuna ñooñu mooy ñi nga xam ne woy woor lañu arraaki'uuna as doona maa arraaki'uuna ñooñu ñooy way rukkooña as-saajiduuna ña di way sujjóot lim ci jiblu mooy ñooy way julli ñi rek Mhm. way julli ña jullee ngoog raakaw na saaji doona ñi li nga xam ni li tax mu cité ñaari façon yooyu rek ñi nga xam ne ñooy rokkoo te julli ak di way julli mooy sujjóot ak julli ak rokkoo li nga xam ne jaam fi la gën a jege boroomam mooy su këppee jëm ci suuf di jaamu yàlla foofu dañoo bëgg sax nit ki di fa ñaan soxla bu defee tasbihaat yi muy defee bu defee eh, sa tasbihaat yi def ba pare sàbbaal boroomam ba pare mu daal fay ñaan soxlaam ndax foofu la jaam gën a jege boroomam bu këppee jëxem ci suuf ba ca topp mooy surukooye toroxlu bi nit di toroxlu yàlla toroxlu pour yàlla sujjóote ca gën a ëpp doole rukkoo topp ci mu daal jël ñaar yooyu kon ñaar yooyu boo ko bëggee fii danga naan rek way julli ñi al ak ña nga xam ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy way digle ñi bil maaroof fi ci yiw ya wan naa hoona ñoom ñooy way tere ña ane mën këri ci luñ sib wal xaafisuuna ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy wattu li huddoo di laay ñeey daytal ñeel daytal suñu borom yi fa leen yàlla yemloo falan yem la mu leen digal la def képp kot yem ca defuñu ca leneen ñooñu daal ñooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla woon wóolërante ñoom pour yóbbu leen aljana te itam mu ni nag wa bashiri na nga bégal al mu'miniina jullit ñi ca aljana bashir bu ko yàlla tegee ci jullit ñi bég la lay firi waaye bu ne wa bashiril kaafiriina ak yu demee noonu bu wa bashir fu ko yàlla jële teg ca baat bu muy wax ca yéefaree xamle lay firi dootul firi bégle na xamal yéefari bu dee jullit ñi nag bashiri moomini na moom wa bashiri mooy nanga nga bégal al moomini na jullit ñi nga wax leen aljanaak kër yiñ fa am ak nañ fa nar dugge ay ji jëm ñu ngi jëm ci li tax mu wàcc maanaam dañoo wax ni yonent bi bàyyi taxam boobu ko yaroon muy abu taalib ba mu demee ba faatu ñëw ci moom te faatoogul waaye sukuraat daal jege ko yonent bi dafa dugg si ci néegam fekk mu tëdd di waaj waaye ba mu xoolee day gis na fa abu jahlin ak abdullahi ibnu abi umayata ak ñeneen nag ñu nekk ci néeg bi yonent bi ñëw tiim papaam daan ne ko waaw yow suma baay tax dama bëgg nga wax laa ilaha illallah ma dëgg ci wax googu nga ko wax layil la ci kanamu sunu boroom mu ni tekk aboo jahlin ak abdullahi ibnu abi umayata ñi ko waaw xam bi mu nee tekk ni moom abu aboo taalib bi ko yonent bi waxee loolu mu ni teg xam na ne xel maa ngi xalaat ñu bañ ñom ñom ñu bañ mu wax la ilaha illallah ñu ne ko ah wa yo abo tal yow legi da danga sip sa diine bay ji nga nekkon bëgg dugg ci diine xalé yi te yow sax dem ba dee tim la ni ngay bëgg ñekki ngay bëgg arrière ci li nga yow mom lu mu doon xew ko te bi ne dam ba yow sama baay tax dama bëgg nga wax laa ilaha illallah ma laayi la ko rammale ci kanamu sunu boroom saa yenente bi baamoo loolu rek ñoom ñu baamuwaat seen wax jooju sa yaa ngi saalit de léegi da bëgg a bàyyi diine ci sa baay ak ñi nekkoon dem ci diine xale yi xale yi xale yi ah ñu <laughs> topp di ko wax loolu ba yàgg nag ndeysaan mu ni ala millati abdil muttalib maa ngi dem ci diine yi abdul muttalib abdul muttalib amul diine waaye maa ngi dem ci aada mooy ca kéefër ga maa ngi ciy dem daal ci wuy ji boroom ñoom lañ bëggoon am nan ko nent bi nag loolu am na nag ñeneen ñu wax yeneeni wax yoo xam ne am na téere mag ñi buñ ca demee eh, yenn téere yi lu demee na ay xilaas ak yu demee noonu da ngeen ca fekk yeneen wax yu bokkut ak yooyu waaye daal lu ci mën a xew jàmm daal wax jaa ngi nii maakaana nekkul jaaduwul li nabi ñeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala siina ak gaaña nga xam ne amanoo gëm nañu an yastaafiroo ci ñu jéggulul lil musrikiina ñeel way bokkaaleñ walaw kaanoo doonte nekk nañu way bokkaale ñooñu u lii xurbaa di way jegeñaale ci fami waaw yeneen bi warul jéggulul ñi nga xam ne ay yéefar lañ waaye nit ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ak yonente bi itam ñoom it day waruñoo jéggulul kenn koo xam ni ab yéefar la lii rek suñ ci yamoon day day atte ni waruñu leen a ñaanal ñoom waruñoo dem ci seen rob waruñoo dem ci seen dara ndaxte maakaana li nabiyin wallazina amanu la wax an yastaxfiru lil musrikina kon yow mi bëgg a laaj ni mi ñaan ni ndax ñaanal ab yéefar dagan na walla ndéet na la leer ni ñaanal yéefar daganu ci ab jullit ab jullit warul ñaanal yéefar ci aajoom waru ko ñaanal ci soxlaam waru koo ñaan mooy aajo daal waru koo ñaanal bu faatoo waru ko ñaanal ci dara doonte lee nag ñooñu dañu laa jege ci jege ñaale waxuma laa ko xarit nag surtout nag min baadi maa tabayyana gannaaw ba mu leeree lahum ñeel leen ni ànnoom naka ñii ngeen di ñaanal asaabu naari ñooy ñiy dëkk safara mu indi nag preuve mel na dañ ko ni yonte Yàlla Ibrahima pourtant doon na ñaanal papaam asara doonte am nañ téere yu wax ni asara du papaam dëggantaan mais euh, bàyyi taxam la mbokku papaam la waye comme ñun alcorane papam la wax sañu ñoo wax wax bu teggi boba papam la wax batay papam la ni japp ñëli nak xëy na ñoom amna ñu xam-xam benen bu tax ñu toppatoo ko gëstu ko bani papam du papam mais mbokk papam la waye man dal limay wax moy papam ndax alcorane lool la wax wama kana nekul istigfaaru ibrahima jéggalug ibrahima ga ga mu doon jéggalul abihi ñeel papaam illa an mawidatin ndaree bu dig boo xam ne dafa da koo def ci dig boo xam ne wa adahaa digoon na istixfaar boobu iyaahu ñeel papaam dafa diggante woon ni moom dana jéggalul papaam koy jéggalul ay bàkkaaram ba mu xamee ni nag papam jaarul fam wara jaar bu ko jéggaluwoon jéggalu ko du ko du ko jariñ ndax dafa noor ci kéefër ah ca la retiré nag la mu doon def moo tax mu ne wama kaana wamaa kaana istigfaaru ibrahima li abiih illa an mawidatin wacadaha illa an mawidatin wacadaha iyaa moom moo ne woon sa astaxfiru danaa jéggulu rabbi sama boroom alaakaa ñeel la yow baay waaye nag fa la maa tabayyana ba mu leeree lëxoo ñeel yonte yàlla ibrahima ne an naxoo naka baayam bii muy jéggulu àdduwun ab noon la lillaahi ñeel yàlla ci kéefar lay faatu tabarraa ca la dañe minhu ci jéggulu googee mu doon jéggulu papa Karena cak. Nah inna Ibrahim. Nah kayuan tiada Ibrahim. La awah. barek torok lula la nyel borom. La awah. Delo kon la. Delo wa kon la ci boromam. torok. Halimun. Eh, Dafa lewat. Muñ katu. Maam denir lu kat la. Makaana nekkul nag jaaduwul. yelluwul allahu yàlla luy di la ngir nay sànq xawman ay nit baada id hadaahum gannaaw bu mu leen jubalee ci lislaam nag xataa yu bay na ba leeral lahum ñe leen maa yattaquuna la nga xam ne war nañ koo moytu ci eh, ragal maanaam ci ay jëf kon nag su fekkente ni bii ni dañoo dañoo wàññeeku réer rek kon la ñu gëmoon doon ko jëf ñoom ñoote ca ñoo ko bàyyi waaye bu ñu ragalee yàlla yàlla jubal leen ñu continuer ci jub googee réer dootu am ci ñoom ndax naka yàlla alimun aji xam bi kulli shay'in ci lépp lu mën a doon inna allah naka sunu boroom lahu ñeel na ko mulku samaawaati moomeeluk asamaan wal ardi ak moomeeluk suuf yàlla moomam asamaan moomam suuf moom da bare na lu muy sitiyee mu ne yàllaa moom lépp de bare na lu muy tudd asamaan ak suuf ndax mboolem lu yàlla bind nit di ci yéemu te mu bokk ci li nit di gis bokk nit di ca yéemu asamaan ak suuf moo ci gën a yéeme ndax suuf mosoo cee dox ba mu ba mu pëtëx asamaan si mosoo cee dox ba gis palaas boo xam ne dafa wadd ci kaw nit te gisoo fenn itam lu ko téye li mu def nga xam ni asamaan li tax mu garaaw gis nga li yàlla bind ci mbindeef ci ci àddina maanaam yàlla li mu bind ci kaw suuf ci ay nit ay jinneeg ay ganaar ak ay xaraki bëyaki nagaki ay sànqaleñeek xeet mu ne daal ci kaw suuf li ci yàlla bind ci kaw suuf li muy bare bare bare mooy asakay li yàlla bind ci biir géej mooy asakay li nekk ci biir géej mhm. li yàlla bind ci suuf ci mbindeef ak lim bind ci géej ci mbindeef soo ko boolee mooy asakay li yàlla bind ci kaw première asamaan soo boolee li yàlla bind ci kaw première asamaan boole kook mu bind ci géej boole kook lim bind ci suuf ñoom ñett ñooy asakay li ci deuxième asamaan nga jël deuxième asamaan premier asamaan lim bind ci géej ak bind ko ci suuf soo ko boolee mooy asakay li ci troisième asamaan li ci troisième asamaan ak deuxième baag première baag ñu bind ko ci suuf ak ci géej soo ko boolee ñoom ñépp ñooy asakay li ci quatre quatrième asamaan quatrième asamaan troisième deuxième premier li ci suuf li ci géej soo ko boolee mooy asakay li ci cinquième asamaan cinquième asamaan ak quatrième ak troisième ak deuxième ak premier ak suuf si ak géej gi boo ko boolee mooy asakay li ci sixième asamaan sixième asamaan ak cinq ba ak quatre baak trois baak deux baak un baak suuf seeg géej gi soo boole la ca nekk lépp mooy asakay li ci septième asamaan loolu lépp nag boo ko boolee mooy asakay li yàlla bind te xamuñu palaasam waaw léegi nag nga xool loolu lépp nag ñu yàlla kon su dencee loolu ci suuf denc ko ci asamaan nit war naa yéemu ci bu yàlla tuddee asamaan war ngaa tiit bu tuddee suuf war nga cee waaru kon bu nee lahu mulku samaawaati wal ard war ngaa mëna a déglu bu baax a baax lam cay ndax waxuma la asamaan si waaye kaf suuf si benn waaye da doon dafa ñëw ni ni moom dafa jommi li tax mu ñu dafa jommi moom jommi du dara lu du gis loo xamul ba pare ñeemi woo ko boo ko def rek jommi waaye gis loo xam ne daal gis na fu mu tàmbalee ci suuf waaye gisul fu mu yem ci kaw ah yow de dangaa gaaw a jommi jommi rek waaye kooku mbindéef la comme yow danga doon dox sa soxla muy dox soxlaam doom boo demee tooñ na kooku ndax kooku boo demee soxlaam rek la doon ndox jommalu ko benn am na suñu benn kilifa bu doon dox yor fasam ak sareetam ba tund wu mu yéeg daal ci guddi gi ci leeraay boobu mi ngi séen daal loo xam ne moom ci leeraayu guddi gi guddi gi bu njëkk da daan leer nañ mi ngi séen loo xam ne daal jëmm ji moom bu yéegee tund da koy séen mu ni déej réy na réy goo xam ne daal taxul mu tourné ba mu demee ndek xam naa koy noppalu la gis ko toog tàllal tànkam ci yoon wi eh, kooku bàyyi la ci Moor Jaañ mii walla muy maama muy bàyyi ma taa Jaañ moo ko nettali ma fekke ko hmm. nee na bi ma demee bu jub ko mu yëkkati tànk bi yoon wi pour ma jàll nee tànk bi mu ko xool naan fi ndeyjoor nday joor ji fa mu toog gis naa ko waaye tànk bi mu tàllal bi mu ko yëkkatee ba ca cat la moom sama bët fa mu yem rek laa ci yem tànk bi rek ma jàll nee na mu jàll ma ne ko xam naa nga fi tànk bu toll noonu xalaatoo sax mu wàcc ci sa kaw booy jàll xam ni pour wax la ne rek mbindeefu sunu borom yi dañoo bari benn waaye dafa jommi ñu dox ba yàgg mu jommi am na lu mu gis nee naa leen jommi mooy dara gis loo xam ne ragaloo muy mu ni day tari ayatul kursi yu jommi tegi di ko déglu mu tari ayatul kursi yu ba ca wa huwa al aliyul azim ko déedéet continuer ba xaali doona ci <laughs> mu ngi parce que wax na ko ni yow duma ko ñuy jàngal ayatul kursi yu maa la ko dàq fuuf noonu nga amee mbindeef yoo xam ni dañoo rëy ba boo leen gisee tiit yow bis bu seet yaa ngi tiital ay mbindeef ndax am na mbindeef yoo xam ne lu toll na moo toog moo toog xam nga ni bu la gisee jommi noonu la amee mbindeef yu tuuti ba mënoo leen a gis ñuy dox seenu soxla toog ci sa wër la ak dox sa diggante ak sa xarit sa diggante sa xarit li mu jege ngeen di waxtaan waaye nga ciy dox soxla di ci waxanteeg nawle waaw lépp di mbindee sunu borom nekk ci diggante asamaane suuf si asamaan si ak suuf si benn waaye dafa jël satlaam dem di jàppi caw jàpp bi mu toog noonu jàpp ba pare moom mi ngi am ngëm goo xam ni yaakaar na ne moom li mu def ci àddina maanaam effort bi mu def waxtu du ko raw te itam du tàggali ko njàpp benn sànq mu toog benn xorandoom ñëw benn sànq lañ ñëw ni ko yow de dañ maa damaa ñëw pour wax a yow parce que nag li ngay lor ci ñun bari na saa yoo toog di jàpp danga nga rey ci ñun lim boo xam ne ci kaw suñu kaw ngay toog rey ci lim bu du jeex te dëkk ci rek nag léegi nag ñu lay wax booy jàppate nga xool fi ngay toog bu ñu fa nekkee nga bañ faa toog yow yaa ngi jàpp defe ne yaa tuj dëkk bi ñaata ñaata sànq lañ ngay rey fi ngay jàppe te ñoom defuñu la dara tooñuñu la am na fooy toll xam nga am na est-ce que xam nga nit dana toll foo xam ne bu reyee benn sànqaleñ la yokkoo ak boroomam mais loolu tolluwaay la am na koo xam ne rey junni sànqaleñ du dara ci moom yëgu ko teyu ko benn responsabilité amu ko ci mais am na koo xam ni benn melentaan bu ko reyee layoo ko ak boroomam warul toll day toll ci jamono nit koo xam ni ci kaw suuf dana ko yilif yilif goo xam ni benn lenn lu xew lenn lu xew lenn lu xew ci environnement da koy concerné moom la xar yaag bëy yi di mbëkkante sax da koy concerné war na ko mën a res te loolu lépp ay mbindee bi suñu borom la ñuy teg ci kaw suuf li nga gis ci kaw suuf mu lay jaaxal <laughs> bu ñu xaajoon téeméeri junni yoon ci mbindee fi yàlla bind ci kaw suuf benn xaaj bi ñun gisuñu ko benn xaaj bi gisuñu ko doy waat doy waar ah mbindeef yi sunu borom yi dañoo bare ñu baal ma rekk loolu lépp ci ci ci ci kii yi la bokk ndax dafa am benn bu ma leen di fàttali eh, ndeysaan am benn waaye ñëw ni ma dama bëgg nga defal ma xalwa ma dem ndar ma demee ndar may def xalwa def xalwa waa ji nag xalwa wi daal xaalis bi ma ci dig bare gi da bare na dal jamono yoy dafa bare may def xal tàggu sëñ mawdo mu ñaanam ne ma ayco demal ma dem yu ma euh may waji ne néeg kër gi ma dugal dafa yaatu am na néeg bu nekk ci angal ba ci koñ ba mu am ay sardin ak ay tool ak yoy ñax yu sekk yu rafet yoy ci ci ci kër gi dal mu yóbbu mën nag ci néeg ba ca roq ba comme man fit yi moom dafa xaw a rëy tuuti ma dugg fa ay ndekki fit wu rëy am na fu mu yem jekki ba mujj yàgg pour wan la rek mbindee fi suñu borom yi nu ñu bare waaw man maa ngi tëj sama néeg toog mais lokeeb douze jours salle de bain bi moo yëngu te man léegi laa ci jàppe ñëw toog te kenn tëj naa bunt bi lokeeb salle de bain bi moo yëngu yëngu bu tar ma ne ah moom luy bëgg a xew ah mu continuer rek ba yàgg rek génn jëm mu génn si yoo xam ni daal tudd bunt bi génn ñëw taxaw am lu mu yor ci loo xam bëgguma nettali lépp ñu baal ma ndax mbir bu amee damay wane rek pour mbindee fi suñu borom yi ni ñu baree mais fi ma jaar ak moom ak liñ ma dicté loolu boo ko waxee day mel ne dafa am looy wut wala looy wane te yàlla xam na ni alxuraan lañu tiim billaahi wallaahi tallaahi jubluwuñ ci dara wutuñu ci dara lu du fay suñu fi ma paree rek affaire bi daal di dem ndax dama dagg film bi nag affaire bi mu demee rek ma perdal na nekkatuma maanaam man yëkkati dara mënatuma ko lu may yëkkati portable damay jéem sama sidit yéeg yëpp bàyyi na ma daan ni téléphoné Serigne Maodo ñoo ko téléphoné mu ni ma xanaa xanaa xanaa dangaa am problème ci xalwa bi benn yoon ay boor trois heures de matin laa ni kar rek dafa sonné benn yoon da mu jël ñu ma xanaa dangaa am problème ci xalwa bi maanaam ah, mu ne ma waaw dangaa deful sarful amaar fi nga nekk da ngaa waroon a dàq jàng loo xam ne dafay dàq rawaan yi fi nekk du tur wi du yow mais ña ca palaas ba ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo manifesté yëg naa ko léegi da koy dagg nag bu subaa nga ñëw dana la jox résultant bi balaa bët set waaye bul àggale xaroo dafa coupé toog tuuti rek jox ma résultat bi ma daal di woo jabar ji ak ki ma ko def wax ak ñoom ni leen nag léegi lii daal li am ba des mooy xaroo yi moom daaw da day ñibbi da koy dagg waaj ne ma non doon fonton ah na jox suñu xaalis fii nga naa kon duñ la fay jabar ji non dañ ko fay parce que comme assuré nañ bu soobee yàlla dina sotti kay nañ ko fay ma ne ah, bu ngeen ma fayee daal baax na bu ngeen ma fayul man daal maa ngi xalwa yu daal fii laa ko yemale bi ma ñibbisi am na sama benn waaye boo xam ne jamono neexatul pour may tudd turam jamono neexatul pour may tudd turam ma woo ko wax ko ko booba ma nga ndar ma man du ma làq jëf moom itam mu def ci benn effort bu mag ndax dani ma euh, kooku ñëw léegi pour dootoo ko gis da ngay da ngay indi ñetti ci suukar ak ñeenti junni ma ne ko ci xam-xamam moom loolu la ma jox ko ko ñëw ci sëñ ma ñëwee ma sëñ Maodo daal di ree buy bëgg a ni ma ana xaalis ma ne ko mi ngi indi nga benn cent jox ko ma ma laal lii de ma dindiwaat beneen paquet cent mille jox ko dindiwaat beneen mu ne indi ma dindi beneen jox ko indi ma dindi beneen jox indi ma dindi beneen jox ko indi ma koy jox ba yàgg mu daal téye xaalis ba yàgg mu ma koy joxaat par cent bi ma bañ mu moo koy joxaat te ma ko joxaat te ma ko joxaat joxaat ma lépp ba mu des benn saa moo tax kooku yaa nañ ko yàlla fayal pour wax la mbindee fi sunu borom yi ni ñu baree gis nga gis nga kenn ku ne am na ku ki fëgg loka bi ci mbindee fi yàlla yi la bokk pour wan na ne man kon man mi doon jaay ay xalwaay yu man duma dara man kon gis nga mbindeef moom yëguma woon ni fa mi jaar foofu man yëguma ko xaw ma ko bi mu ñëwee xaw ma ko te li tax ma jàmmaarloo moom loolu mbindeefu sunu borom moo ma ko wax te xaw ma ko woon kon kooku ba tey du sama morom du moroomum kooku bi ma génnee ki ma woo sama xarit boobu nekk nekk nekk ndar mu ma indi nangam indi nangam kon kooku du moroomum ñooñu ba tey mais ki leen gën a yegg nag mooy seen Maodo mi ma nangam ak nangam a tax looloo jot xew nangam ak nangam ngay def nangam ak nangam moo xew te ñoo ñëpp ay mbindeef suñu borom la te loolu ñi ngi ci kaw suuf kon yàlla bu lay wax loo ba tey asamaana suuf pas asamaan si kese mais liy dund ci biir asamaan si di dund ci kaw suuf si war na laa mën a bàyyiloo xel suñu bopp ak yeneen ak yeneen yu ñu mën a joxe yoo xam ni kenn ñi ko sax tudd yenn yi waaye daal ñu bàyyi xel ni yàlla moom nag yàlla moom def loolu lépp nag moom moomu yux yi moom mooy dundal waaw kon est-ce que kenn mën naa rey kenn yu yii moom rek mooy mën a dundal te mooy dundal wayu miitu te moom rekk moo mën a rey te mooy rey kon rikkuwaay ku fi dund wala nga dund le xamal ni yàlla rekk moom la ku fi faatu wala nga faatule na nga xam ni yàlla rek moom la kenn mënta dundal kenn ku dul sunu borom kenn munta feebarloo kenn ku dul sunu borom koo gis mu ni mën na feebarloo nit am na ko feebar te koo faj koo gis mu ni moom mooy dundal kenn am na ko dee ko dee nga néexu te ci kanamam la dee dee nga ko te ci kanamam la dee kon kay yàlla yu xii yu miitu fama lakum kon ñeelu leen yéen nit ñi min waliyin jenn aji méngoo ju leen di wattu yéen wala nazirin du jéegée ni jenn aji dimbali ju leen di dimbali di leen mën a dimbali ba ngeen mucc ci lor min dooni laay ku dul yàlla léegi nag ci biir mbindeef yooyu yàlla ni kenn mënu leen cee def dara léeg nga jekk di mbindeef kooku di mbindeef nga ñàkk fay defe ne lu la loo ñàkk rek mbindeef na yow la ko xaj kon yàlla moom gën a gën a gën a gën a gën a doy waar nag yàlla nekk fi yor mbind mbiram yi kon nag nan bàyyi lépp ak yàlla xam ne buñ ko bàyyiwul ak yàlla itam moom moo ko yor nag yàlla rekk la aay bii nu jëm sababu nuzul bi dafa gudd dafa dafa bare Hmm. nan ko firi xam ne ñun lay waxal laqad taaba laqad ci dëgg taaba nangu na tuub allahu yàlla ala nabi ci yonentam bi wal muhaajirina ak way gàddaay ña wal ansaar ak waa lansaar ña allazina mooy gaaña nga xam itabaahu topp nañu rasulullah fii saatil usrati ca waxtu wu jafeñ wa te mooy xare Tambuuk ba ca mar wu metti wa ca xiif gu metti ba min baadi ma kaada gannaaw ba nga xamee ne xaw tuut yasiixu di jeng xuluubu fariqin xolub ab kuréel minum bu ci ñoom suma taaba topp jéggal topp nangu tuub moom yàlla alihim ci ñoom ndax na naka moom yàlla raofun ñeewantaa koon la rahimun yërëmaa koon la bihim ci ñoom rahim wax naa leen ko raouf wax naa leen ko démb laa leen ko waxoon yaakaar naa ki nga xale bi nga xam ne moom dafa nee naa la dafa dafa dafa am ay góom am ay kii ci bopp bi nga woo ko de ko wat def ci faj ko bàyyi ko mu dem kooku da koo yërëm waaye ñeewante nag nday jaa ko def moom mi nga xam ne bu ko gisee bëgg na koo faj mais attanu koo laal il faut mu bàyyi keneen watal ko ko moom sax du ko fekke ndax bëggul gis ñuy laal bopp doom ji ak góom yi ci nekk ñeewante boobu mu am ci doom ji maanaam boobu bu ko raw la yàlla am ci jaam yi moom moo taxaw mu taxaw moom mooy taxaw taxawaayu ra'uuf beneen bi mooy taxaw taxawaayu raxiim innahu bihim raufun rahimun wa tuub nangul na tuub alal salaasati ala salaasati ca ñett ña alla siina ña nga xam ni xulifoo wuuteleefoon na leen ci ba ñu waree dem euh, xare Tabuk te demuñ ñett ñooñu boo leen bëggee xam nanga leen gëstu ji waaye dañ ko daan tëgge màkka màkka màkka geen màkkata seen tur yi Mm, euh, kenn ki mooy maam mii gi miim gi defe naa ni mooy mara dama koy fàtte muy mara xaw ma maraarata ibnu rabia kenn ki mooy kaaf gi mooy kaab ah wala du moom kaab ibnu maalik kenn gi mooy hilaal haa gi hilaal miim gi marwaan miim gi mooy maraarata mu ngi noonu ñett ñaangoog ba nga xamee ni bokkuñu ca demuñu ca xare ba tuub nañu yàlla jéggal leen mais ñoom la leen teewoon a dem ah du du du bokkaale dañoo tàyyee loon rek am ngante demuñu xataa sa ba ñoom nag tiitoon nañu xataa isa daaxat ba xat al ardu suuf sa alihim ci ñoom bi maa raxu ànd ak nag suuf si ni mu yaatoo wa daaxat xat na alihim ci anfusum seen bopp wa sànnoo ñu jort ñu am luy mbir tey mbir daal laa malja di benn wéeruwaay mu na laay di tukkee ci yàlla illaa ilayhi loolu del na ci sunu borom su ma taaba toog mu jéggal moom yàlla alihim ci ñoom li yaatoo boo ngir nañu tuub nag ina laa naka yàlla huwa moom a tawaabu mooy nangookaan tuub ba arahim moo yërëmaa koon yaa ayyuhal lazina amanu yéen gaa ñi nga xam ne yéen a ma gëm ittaqoo ragal leen allah yàlla ragal leen yàlla ci bàyyi di ko moy wakuunu ngeen nekk di dëggal ma saadiqiina ànd ak way dëggu ñi ngeen dëggal ngëm yàlla gi ngeen gëm dëggal wóllëre bi ngeen fasanteeg moom taqoo dëgg ga maakaane jaaduwul nekkul yelluwul li ahlil madinati ñeel waa madina wa man hawlahum ak ña nga xam ne ñoo wër madina minal araabi tañu bokk ci dëkki kaw ya an yataxallafoo ñuy wuute an rasulillahi ci ndigal suñu borom ci ndigalal yàlla bi muy jox yonent bi ci wàllu xeex baak yu demee noonu wala yarxaboo waruñoo sib an nafsi wulif euh, njool màkka wulif yonent bi bi an fa seen ngir seen bëgg-bëggu bopp raqiba bu jëggatee an sib lay doon bu dee baala nag kooku euh, xeemeem lay doon saalika tere googu ñu leen tere wuute bi anum naka ñoom laa yu sibum du leen jot sama mar wala nasabun du jéggi ni coono wala maxmasatun du jéggi ni xiif fii sàbbilaay ci yoon yàlla wala yata oona ñu teg seeni tànk mawti an benn teguwaay ya xëy boo xam ne dana merloo al alkufaara yéefar ya wala yanaaloona du ñu am min adduwin ci benn noon buy noonu sunu borom mu yéefar yi nay leen genn am am ray leen wala jàpp leen wala yu demee noonu ñu ko def ñoom jullit ñooñu illaa côté ba ndare bu bindeef na lahum ñeleen bi ci jëf joojee amalun jëf saalihum yu yiw a lañ leen koy bindal te naan leen ko fay inna allah naka yàlla laa yu du yàgg ba mu sànk mukk ajjiral mos si nii na yoolu way rafetal kon rafetal baax na nafa xatan mbirum nekk muy dund saxiiratan fi financement saxiiratan bu ndaw wala kabiratan du jéegéerum bu mag wala yàqatawoona duñu ñu duñu du ñu traversé waa di yéen benn kur ilaa côté ba ndare bu bindeef na aw yiw lahum ñe leen li yajziyahum ngir na fay leen allah yàlla ahsanama gën ji ra gën jaarafetu la nga xam kaanoo nekkoon nañu yaamaloona duñ ko jëf mm-hmm. wama kaana nekkul al mu'minuuna jullit yi li yen firoo ngir nañu daw ci xare bi kaafatan boole seen falaw laa nafar xanaa lan moo tee am kuréel min kulli firqatin bu tukkee ci kuréel bu nekk minhum bu tukkee ci jullit ñi daa minhum tukkee na ci ñoom taayi fatun kuréel boo xam ne dañuy des ca kër ga li yatafaqahu ngir nañ sax ca kër ga di jàngale fi diini ci diini wala yun siro ak ngir nañu waar xaw moom seen nit ñi saa rajawoon dem dellu si nañ jóge xare ba ilayhim fekk leen ca kër ga ñoom ña demul woon laalom ndax bëgg ñoom rek yaasaroona ñu waaru ci moytu mbugalum sunu borom lan moo tee bu amee ñu dem xare ji am ñu des ci kër ga di jàng di jàngale ngir ñi nga xam ni ñoom ñoo des ci kër ga ñiy ja di jàng di jàngale bu ñu ñëw bu ñu dem xare ba ñëwee ñu jàngal leen waar leen fàttali leen mbirum seen diine yaa lazina amano yéen gaañeen yéen a ma gëm xaatiloo na ngeen xeex ak la gaañee nga xam ne yelloo na kom topp nañu jege nañ leen minal kufaar yi méng nañ leen minal kufaar yi te ñu bokk ci yëfër yi wala yàjji doon nañu am fekk fii kum ci yéen xel satan ak dëgër boo xam ne dana ngeen dëgër këng wala moo xam ne ne am na laa naka yàlla maal mu taqi na am naa ñu ragal ñu yàlla wa isa ma unsilat ndeem wàccee fees na sóoratun wenn saar ci alquran nañu tukkee ci naa feq man ñoo xam ne yàqooloo na ña ngay wax waxu yëjj naan ayukum ma mu doon ci yéen kan ci yéen saadatu la koy dolli haas yi aaya bi imaanan ak gëm waay ana kan jéen la aseen ñii wax ji yonent bi wax kan lay dolli ngëm ci yéen muy yéen ana yéen ñii kan la ci wax ji dolli dara fàmmal la si na daal gaañ nga xam gëm nañu fa saadat hum aaya ba kay dana leen dolli imaanan gëm yàlla waxum te mbir mu ñoom na daañu bégit ca aaya boobee fàmmal la si na daal gaañ nga xam ne fii xulóobihim ruuru na ca seen biir xol ya xol ya maradun feebar te feebar gi mooy pas-pas bu doyadi fa saadathum dana leen dolli moom laaya boobe rëjisan ak kéefër ilaa rëjisim gu dolli ko ci seen kéefër gi fa jiituwoon ñi nga xam ne seen xol dafa am dafa xat dafa amub kéefër pas-pas ba da caa néew aayab alxuraan su ñëwee aaya ba du leen dolli dara xam nga lu mu leen di dollee gën a weddi yàlla gën a nekk yéefër goo xam ne day dolli ko ca la nekkoon seen biir xol ci kéefar waaye ñooñ wamaatoo dañ leen deeda waxum te mbir moom ñoom kaafiroona ñuy nekk yéefar awalaa yaraw na xanaa danga gisul naa feqi ne ànnoom naka ñoom yuftanoona def na nattu leen fii kulli amin ca bépp at bu nekk daan leen ca nattu marratan benn yoon aw marratayni wala ñaari yoon nan leen di nattoo mooy indi leen bekkoor wala indi leen ay feebar at mu ne daañ leen indil nattu ñaari yoon benn ñu indil leen bekkoor ñàkk gu ñàkk wala boog ñu indil leen korona waaw te su ma topp laayetoo boona du tax ñu tuub bu ñu leen indilee feebar boobu am na ñoon korona taxu leen a tuub xam nga ñoom lan moo tax ñu yàkkamti couvre-feu bi jeex mooy ba ñu seeti seen gel yi ba ñu dem ci baar yi ba ñu dem yaataa yu ñoom rek mais yërëmuñ ci sax ñi ciy deeg ñoom seen fuu ñooñu dañoo dugg ci euh, wa isaama unsilat suuratun ñoom ñoom ñoo dugg ci awalaa yaraw na annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayn ane at mu at ñaari bekkoor ñaari ñaari yi leen yàlla di jox benn mu nekk ci bekkoor ak feebar waaye ñoom bekkoor taxul ñoom ñu arrière feebar taxul ñu arrière moo tax mu tekke ni fu ma topp nag natt yooyu leen yàlla di nattu laaya tuuboona du tax ñu tuub wala hum diit ñoom itam ya zakkaruuna ñuy waaru bekkoor baa korona ak leneen a ci yem du ñu tuub du ñu waaru dañ naan sax amul benn yoon ay dóor la amul naa korona ay dóor la ba korona foofu la dóor defe naa ni dootul dootul dootul man naa ami dóor nag waaye dóor yi du ma xam fu muy jógee parce que ñun duñuy docteur duñu dara bu amee dóor ñoom ñi koy res ñoo ko xam de ñun daal nañ daw rek te daw korona dara ci tuub dellu sa borom daw korona dara ci tuub su ma laa yaatoo boo na kon boo tuubee mën nga ci mucc aaya bi kay ngi nii wala yazakkaruuna duñu waaru yow kay fexeel ba waaru rek dellu ci sa borom dellu ci sa borom waaye ba isama unsila ndem wàcceef na sóoratun aw saar yonent bi di ko jàng nasara day xool baadum lenn ci kàccoor yi ilaa baadin ca ñette des naan xal yaraakum ndax gis na leen min ahadin ci kenn xam nga bu yonent bi dee jàng benn alxuraan aaya alxuraan ba at ci ñoom aaya boo xam dafa dal ci seen kaw di leen xas fekk ñoom ñu ngi toog dañuy xoolante ñoom seen bi xamante nañ ñoom naa fiq yi aaya bu dee dal seen kaw dañuy sëgg ba yàgg rek ñu daal di sigg kenn ko ne xool sa morom ki nga dendal xool xool ko ñu wokkante gaa yi est-ce que ñu ngi ñuy gis buñ ñu gisul rek ñu daal di nga di rocc ko ndànk dem ñoom ñu rocc ko dem suñ leen gisee ñu toogaat continuer yëngal seen bopp di dëggal yonente bi ak di fottasu danaa comprendre ngeen mm-hmm. moo tax ma ne ba isama un si la ndeem wàcceef na sóoratun aw saar woo xam ne yonente bi da koo jàng mu dal ci seen kaw nasara day xool baaduhum lenn ci ñoom ilaa baadin ca ña ca des pour bëgg a daw su ko defee ñu ne hal yaraakum ndax gis na leen min ahadin kenn ku bokk ci gaañi su dee kenn gis na leen ñu toog bu leen kenn gisul ñu rocc ku dem su leen kenn gisul summa ansarafoo topp ñu sopp ñu daal di rocc ku ndànk soppali ko génn dem seen yoon continuer ci ak kéefër fekk ñooñee sarafa soppali na allah yàlla xulóobam seen xol ya njub ga ñu waroon a am pour seen seen xol dikk ci njub xol yooyu moo soppali ku continuer ci kéefër bi ànnum naka ñoom li tax loolu am xaw mu nit nañ yoo xam ne laa yafqahuuna du ñu dégg dara laxadd wallahi dëgg la jaakum dikke na leen rasulun ab yonent min anfusikum boo xam ne dafa bokk ci yéen te mooy sayduna muhammad yonent boo xam ne lu tar la asisun lu diis la maa xani nga xam ngeen ko ci coona alayhi ci moom ngeen daj ci moom diis na lool harisun ku xër la aleykum ci yéen pour ngeen jub raofun ñu ko ñeewante la rahimun yërëmaakoon la ci ñan bil muminina ci jullit ñi fa in tawalaw yàlla ni yonente bi ndeem naafiq ak yéefar dañ laa wëngeeñu wan la gannaaw ah faxul neex wax leen ni leen dem leen man de xaas doy na ma sëkk allahu yàlla laa ilaha amul benn buur boo yaayoo ñu jaamu ko jaamu ngay jariñ ñàkk gaa jaamu di lor kenn illaa huwa ko du moom yàlla ñu wax leen loolu ba pare nee leen man day taw akaltu sukkandiku naa sama lépp alayhi ci yàlla ndax waxoo moom yàlla mii rabbul arshi mooy boroom aras ak la ca des al azimu mooy aji màgg ja mm. ayatul ku ay laxat jaakuma ngoog saar wa jeex laxat jaakum jeex di nit yàlla benn wax nañ lépp loo xam ne am nga ko soxla te ci soxla te bëgg mu faj na nga jàng sa faatixa benn yoon mm. wax sa astaghfirullah ñetti yoon wax sa salaatul faatixi wala salaatu ba ngay jëfandikoo ñett yoon nga jàng junni la xat jaa akum ci benn palaas soo paree nga tëje ko benn salaatul faatixi wala benn salaatu ala nabi nga pare moo tee soxla ba sotti junni nga pare moo tee soxla ba sotti waaw mag benn magit nee na ma doom da soo jëlee sa benn alloo bu mag nga raxas ko ba mu set nga bind ci laxat jaakum ci benn jotaay bisu altini nga raxas ko naan ci ba sa biir fees nga sangu ci ngànnaay dootu la dugg tul nga tul señ Maodo it joxon na ma ci bo xamne mom benen affaire la moy moy mooy danaa ko wax mais ñi duma duma ci xir dal waye dana ko wax nak parce que kon du am ben sens bu mu tee ngeen di ñëw ci man nak yéen ñu mëna nar dal ñu nuyu du gisatuñ seen kanam ñi nga xam dañ lay nuyu rek affaire bi da bima ci amé ben problème am ci ko xam ne laaj na ko xaalis mu jox ma ndax nak dagan na ci a son ma ñaan ñaan rek mbir mi dañ ma ñëw sëñ mawdu jub ko fekk mu toog ci buntu ko maam alaaji Racine booba fa la ñu dëkk ñun ñëpp ma fekk ko mu toog foofu ma ne ko waaw man day dama amoon benn problème mu ne ah, problème lan la ma ne ko dafa ku ma doon ñaanal daal koo xam dañ koo nuyu affaire yi dem mu ne ma ah loolu dong ah, mu ne mu ne ma ah bëroot ma ne ko bëroot naa ba sonn dem mun ma ah, waaw waaw waaw léegi boo nee bind la xat jaayakum rek ma ne ko laxat jaakum mun ma waaye bindal laxat jaakum boo ko bindee ba mu pare nga raxas ko dem jox ko mu naan raxas la raay ci kanamam manaa ah, mu ne bu ko defee dana ko gis de ma àgg rek bind laxat jaakum raxas ko jox ko mu naan raay ko ci mu ne raay ko ci na xam ngeen fi mu koy raay ndax li mu xool gisu ko fa mu nekkoon la koy raay ngeen baal ma li ci des nag waaw ah, waa ji def ko rek jekk ba yàgg mu mu ci wanam yi mu daan ñëw ni ma la ilaha illallah affaire bi ñëw na ma ne ko ah mu ni ma ñëw na dem dama xaar ma wan la ma ne ko déet loolu moom jëruñ joy àgg naa moom dangaa kontaan de waaye loolu moom baalal ma ko ko defee nag mi laxat jaakum ak yeneen i njariñ yeneen i njariñ yeneen i njariñ bu fekkee da nga bëgg muslaay képp foo jullee def ko juróom-ñaar foo rek jàngal juróom-ñaari laxat jaakum lenn lenn lenn du la mënal dara ndax kaaraange sunu borom la su ko defee ngeen mu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu